xoolee euh, kii gènes yi évolution euh, kii euh, gènes yi mën na nekk xar yi gènes yoo xam ne dañ koy ci seen yaay wala doon seen papa wala mu nekk performance yoo xam ne dañ koy am ñoom seen bopp ñu mën cee jikku jafandiku pour jéem a am amélioration mais li gën mooy moom la ñoom kii docteur Diallo nekk jàngat boobu mooy il faut une évaluation mooy xool xar bi bu mu juddoo ba ba muy fer mesurer poids am di mesurer pois am di mesurer consommation aliment am parce que mun na am ñaay xar di juddandoo kii di lekk 1 kilo kii lekk cent grammes c'est sur que dañu bokk poids donc il faut ñu nekk dans des conditions standards ne xar bi war na lekk 1 kilo chaque jour cent grammes chaque jour comme ça dañuy mën a xam la mooy effet gène bi mais tant que maîtrise ñu environnement bi rek mooy ñaata la ñuy lekk. lan la ñuy lekk parce que kii buy lekk ménage ki lekk euh, sipa laa dum ki lekk tenoon laa nga ne kii moo ëpp euh, poids wala moo ëpp hauteur wala moo ëpp longueur te aliment yi xamoon la moo ci nekk y a déjà une euh, am na loo xam ne am na fu mu départ foo xam ne maîtriser wuñ ko donc loolu dina jouer performance yi donc il faut que ñoom une évaluation jusqu'au sevrage évaluation des pères et xool itam Euh, jigéen ñi seen fertilité seen fécondité ak seen aptitude laitière parce que loolu dafa am solo ci xar bu jigéen bu dee euh, xar bu góor ñu xool croissance am xool morphologie bi comme euh, donc boo xoolee c'est les lignes yoo xam ne éleveurs yi si la ñuy travailler depuis des années pour au moins avoir des performance yoo xam ne dina moom la ñuy toll nii di gën a liggéey pour gën a développer laadum yi donc lii wax naa ko sànq mooy bergerie bi bergerie bi dafa war a nekk vraiment foo xam ne dafa war a set sell donc dañ ko war a am un programme de désinfection avec des produits homologués docteur na ne produit boo xam ne dafay euh, raxas kii euh, kii la si pour kii euh, kii bi kii bergerie bi da koy day naan kii bi parce que docteur war na ko sànq mooy litière absorbant la ak rôle de confort parce que comme matelas la donc dafay naan am na sax boo demee ba Europe ñu jël argile argile bi lu mel ni argile at parce que boo demee ci station yi bu amee kii bu tuuru carburant bu tuuru dañ fay def argile mooy téye carburant bi argile la am capacité d' absorption de 30 à 40 pour cent par rapport à son poids donc boo demee ba ay allukaay ñu fay exploiter ay argile ñoom ñu ngi koy jaayee sax gaa yi def la volaille la mooy atavette bi ak attaque budget bi donc loolu li cee gënu ko te dafay naan lu bëri bëri bu la neexee boo paree def ko fumier donc am na yoo xam ne vraiment buñ ci gësto rek da mun am solution par rapport ak euh, gestion élevage donc là c'est les femelles yoo xam ne euh, les anciennes génération ba léegi sax donc euh, su ma ñëwee un peu si performance ci génétique bi am na performance yoo xam ne bon euh, waxoon naa keroog mooy dina nekk si ascendant bi ci papa ji nga bëgg mu ñëw ci doom ji nga jël mooy performance su am na performance yoo xam ne dafa nekk ci descendance mooy nga nekk ci doom ji nga gis doom yoo xam ne dañoo rafet trop nga ne doom yi bëgg naa ko xam xaama dem seen papa ou bien seen yaay seen papa tëblu foofu parce que mën na doom parce que bu ñu fàtte ni géniteur ak champion bokkul donc y a géniseur champion bokkul donc loolu rek euh, am na xar yoo xam dañu mën doom am na xare yoo xam ne nag c'est des c'est des animaux dañu am mentionnation macha allah loolu nag expérience la ak loo xam ne dañ ko ki ci terrain bi moo ñu permettre ñu mën a différencier les deux donc yi c'est des fiertés donc euh, yoo xam ne ñu ngi fi ñu kontaan trop ci liggéeyu éleveurs yi moo tax ma wane ko vraiment di remercier ñooñu mënoon naa tànn ay 200 photos mais comme temps bi dafa gàtt moo tax ma tànn yi euh, euh, docteur wax na ko sànq aliment euh, xar junjukat la junjukat mooy loo xam ne da ngay lekk en retour di dundal ay doomu jàngoro yu nekk sa biir ñooñ ñooy togg loo xam ne moo baax si yow donc muy xar boo xar boo jëlee ménage di changer à chaque fois la composition donc flore bi nekk ci bak ci biiram dafay dem dafay changer mun a nekk des bactéries yoo xam ne seen profil mooy dem ba indi fër donc aliment xar dafa war a nekk alimentation constante boo seetloo xar boo génnee période tabaski xar bu bees bu tàmmoon lekk ñax bu ñëwee ci kër gi bu commencé lekk euh, ripaas rek biiram dafay daw parce que bactéries yi nekk ci biiram ñoo tàmmagul lekk boobu donc xar il faut mu tàmm une ration boo xam ne dafa nekk une ration permanente régulière bu dee nag changement ration mënul ñàkk il faut le faire de manière nànk-nànk nga dugal alimentation bees bi du ko ci ba moom ba bactéries yi nekk ci biir bi changé wu nga doog a yokk quantité bi donc moo nekk ni bii dama tànn euh, nag mais boobu boo xoolee ni mu bindoo nag ak xar benn la donc mooy bàq bi mooy euh, euh, ay poche dam poche gastrique donc poche yooyu bu ki nekk ak rôle bu muy donc xar bi su lekkee benn aliment c'est la phrase boo xam ne moom lañ koy tënkee mooy tout le ruminant et dans sa panse y a une symbiose entre doomu jàngoor yi ak xar bi donc euh, xar bi mu nekk mbote ak mu nekk kuy ak mu nekk bépp mala dina soxla ndox ak fourrage ak concentré loolu moo ko indi lii yëpp nga xam ne moom la soxla pour màggam pour ay besoin parce que alimentation dañuy raisonner en termes de besoin parce que xar bi su amee un potentiel génétique bu waree màgg 100 grammes par jour dañuy calculer besoin boobu moo xam ne mooy tax mu am 100 grammes yooyu même boo ko defoon sax aliment bu gën a riche ci monde bi 100 grammes yooyu du ko passé donc on raisonne en terme de besoin besoin xar buy nàmpal besoin xar buy màgg besoin xar boo xam ne dafa war a tëggu te gisoo quantité ndox bi nee nañ xar bi war na naan 3 5 litres par kilogramme de matière sèche donc est-ce que ñun ñu ngi jox xar ndox boobu xar bi boo xoolee xar yi li ñu naan bokkul euh, bëriwul te ndox bi moo ëpp solo euh, ripaas bi sax donc may conseil éleveurs yi mooy ndox bi nekk fa en permanence ba pare ndox bu nekk boo xam ne ndox boo xam ne dañ koy renouveler parce que ndox bi su tàngee itam du ko sawar naan ci période tàngaay bi donc ndox bu ñuy renouveler nga xam ne dina mën a am yenn seddaay ak yenn cat bi dina baax ci màggaayu xar bi donc y a des besoins d'entretien besoin de lactation de croissance yi mooy les besoins ak xar yi sàmmee besoin de déplacement donc euh, docteur on na ko sànq xar bi bu amee mbaar boo xam ne dafa yaatu trop mun nay déplacer di daw loolu dépense énergie la mais tam xar tam tënk tënk boo xam ne tam da koy nekk loo xam ne da koy gaañ tam euh, kenn conseil ko éleveur yi il faut un compromis nga nekk diggante bi mbaar bi waru yaatu trop mais tam waru xat ak toi biir wala xaru ndaamam besoin à même âge du bokk ça aussi ci sexe bi xar bu góor ak xar bu jigéen bokkul ci âge bi état corporel boo amee xar boo xam ne dafa ëmb ba pare xaw a euh, am xaw a am yaram kooku boo ko noo koy dundalee par rapport ak xar boo xam ne dafa maigre bokkul donc nekk état corporel éleveur war na am ay basique mooy war na mën a xool xar bi est-ce que suur na wala suurul war na mën a xool xar bi est-ce que euh, aliment bi jar na may yokk wala jarul may yokk ça c'est le vécu de l'éleveur ak basique yoo xam ne war na ko mën a am suivant son expérience donc euh, yi mooy les minéro yoo xam ne macro élément aliment da koy indi ay valeurs yoo xam ne c'est des milligrammes mais oligo éléments yi seen quantité moo ndaw ba nga xam ne dafay euh, naqaree def ci kii bi donc mais boo leen xoolee ñoom ñëpp am na interaction minéro yi boo jël rek am na interaction benn donc benn bu manqué rek mën na indi beneen conséquence boo xam ne dafay lor xar bi donc ñu bañ a jaawale tam pierre à ak bloc de sel bloc de sel mën na nekk si gétt gi parce que day xorom day indi appétence muy xar di nag alors que pierre à lécher bi euh, mën na am ay minéraux yoo xam ne ay oligo éléments yoo xam ne dina jëriñ xar bi suivant ses besoins te bu dee bloc de sel xaal bi su tollee gestation bu sori xorom bi mun na ko indi ay œdème mammaire donc euh, ñu bàyyi xel ci yooyu ci euh, ñaari différence yooyu donc euh, xar wax nañ ko sànq junjukat la donc moo tax ñu koy jox ngooñ wala paille wala fourrage bant bi am ci ngooñ bi bant boobu mooy masse poule bi mu mën a liggéey donc bant boobu am na solo trop du question bu doon euh, xob bi wala ñax bi rek ngooñ mën na ñàkk mais bant boobu di masse kóol bi nga xam ne kóol bi dina mun a liggéey mën a ruminer loolu jar ci ngooñ bi donc euh, li mooy besoin de la femelle gestante suivant sur toute sa vie boo xoolee xar bu jigéen besoin en énergie mi ñuy gën a ëpp bu nekkee ci nàmpal ak fii bu tollee ci euh, diggante waaja aussi bu amee ci ñeenti weer ci ëmb donc fii besoin day bëri trop parce que xam foofu la fluide bi di manqué à 70 pour cent donc on comprend bu tax mu àgg foofu. donc li ñuy wax le choix des reproducteurs fii moom mi ngi toll foo xam ne dañu war a tànn xar pour euh, defar gétt éleveur bu nekk nag euh, am na lu muy ut ci euh, géttam xam naa ci mën na ut auteur. Euh, saa yi mën na ut wet kii mën na ut poids mais am na ñoo xam ne moom euh, mal bi euh, ñun dañoo taamu balaa moo tëbu ci atam mu am au moins dix huit mois loolu mooy li gën parce que mu ngi toll ci màggam li gën loolu mooy li gën nag mais nag bu ko defee lu weesu loolu avant loolu mën na nekk ça dépend ci précocité mais comme mi ngi màgg màggam des na li gën mooy mu tollu ci âge boobu ba pare. mu am ossature ba pare éleveur bi mooy xool mensuration am ne moom lay tàmm ci maal mun na nekk hauteur am mun na nekk wetam mun na nekk poids bi mu nekk tam maal boo xam ne tam wér na sur le plan santé amul benn feebar donc âge bi 18 mois 15 mois 13 mois mën na nekk âge boobu yëpp 11 mois am na sax tënk yoo xam ne 11 mois ni tëggul mais comme li ñuy wax rek euh, même nit dañ naan. jigéen tàmm mu am doom ci âge bi mais bu amee âge bi itam mën na nekk c'est physiologique mën na nekk bu dee xar bu jigéen bi choix yi mën na nekk des choix morphologique xar bi rafet na am na am na wet am na bind am na am na kees mais li am solo tam mooy xar bi ñu xool est-ce que weeni capacité mamelle ma euh, kii yam de position laitière est-ce que am na importance tam parce que on se rend compte de plus en plus la remise bon ces production laitière wàññeeku na peut-être c'est dû à la à la sélection à la génétique loolu tam ñoom docteur nañ ci wax ñoom xam naa def nañ étude yu sori mais xar moom bu jigéen ñu xool mam ween yi mamel yi est-ce que amul mamit amul dara bokk na ci critère de base de choix du femelle parce que ween yi mooy dundal agneau bi donc laaj na bu dundee mën a fekk euh, ween yu baax donc euh, Euh, ma ñëw ci flushing bi ñun programme NMA bi dañ ne flushing bi mooy xar bu jigéen bi su waroo tëbu taamu nañu jox ko bu doon lekk euh, libre aliment ñu teg ko 300 grammes ci euh, super wala tenon la ñu teg ko si pendant 21 jour loolu dina tax tëbu bi gaaw a jàpp ba pare li muy répété du bëri docteur wax na ko sànq donc bi am na importance trop pour carrière femelle bi bu dee mâle bi nag. dañ ne pendant deux mois war na mën a lekk cinq cent grammes ci li mu doon lekk donc loolu dina permettre tam moom tam carrière am gën a gudd parce que Mali daanu Mali euh, am ay problème santé euh, yu bëri tëbu bëri moo koy def donc il faut une bonne alimentation avant muy dem tëbu ji donc euh, mooy préparation à la lutte mais xar boo def flushing tam basé wu doon état corporel mooy xar bu jigéen bi bu dee dafa nekk xar bu suur trop flushing ba jaru muy gudd mën na lekk euh, ngooñ bi ak tuuti aliment bu dee dafa jeex trop nag foofu ngay mun def flushing pendant 21 jours. notre état corporel nii lañ koy euh, nattee nga xool day dem ba 3 à 5 fii boo xoolee xar bi yaa ngi laal presque yax bi donc ça veut dire xar bi dafa maigre inférieur à cinq fii boo xoolee. Euh, yaa ngi def presque dafa ovale donc fii xar bu suur la macha allah donc kii jarul def flushing donc euh, mooy euh, lii mooy njëriñu flushing donc lii mooy fiche bi ñu def par rapport ak besoin itinéraire laa bi tuddee mooy xaar bi laadum bu juddoo ba ba muy nekk mag war a tëbu am doom naka lañ ko jàngate ñun mooy euh, xar bi bu ñu boolee yaay ak papa ji ba mu tëbu ba euh, ba mu jàpp euh, bu jàppee ëmb xar mu ngi def entre cinq mois et cinq mois et demi donc boo xoolee trois mois njëkk xar bi bu ëmbee dafa mel ni xar bu ëmbul donc ay besoin bariwul mën na nekk xar yu ëmb sax yu ëmbul li di lekk ak ñoom mais bu ñëwee ba ci ñaari weer njëkk yi mujj foofu la ay besoin bi gën a yokkoo parce que foofu la beauté bi di màggee à 80 pour cent donc conseil éleveurs yi mooy bu xar desee comme ñoom léegi ak échographie éleveur amul droit ne man wóor ma ndax ëmb na wala ëmbul donc xar bi su tëboo dans le premier mois mën nga woo échographe mu xoolal la nga yóbbuwaat bu mu tëb bu wóorulee parce que loolu tam perte temps la xar bu jigéen njëriñam mooy am doom donc bis muy nekk foofu amul doom di lekk perte mal ci éleveur bi donc carrière éleveur wu ak carrière bi mi koy mesurer dañ koy mesurer en terme de naissance en terme de prolificité mooy ñaata doom parce que xar bu jigéen tam dañ ciy taamu xar bi am ay seex donc critères yooyu éleveur war na ko mën a xam carrière wu brebis bi ne man brebis bi mu am bii nii euh, fekk na au préalable identifié ko amal na ma 10 doom durant toute sa carrière donc kii ñi laa ko yoree woon ba mu am léegi pour amaat li il faut ma jaar yoon bi loolu mooy euh, historique ak traçabilité donc dernier mois de gestation boobu nag bu yegsee comme xar bi lekkam dafay néew parce que foudis baa ngi màgg li gën mooy ñu ber ko boo ko beree di nga mën a di ko mën a permettre muy lekk à son rythme jox ko aliment super wa teew laadum un kilo euh, par jour wala 800 grammes ça dépend état corporel nga koy jox nànk-nànk de l'eau ak kii ngooñ ngooñ de qualité comme lekkam bëriwul na nekk ngooñ boo xam ne dafa am qualité bu baax a baax donc euh, foofu tam il faut nga kii ko nga li ñuy wax programme de prophylaxie médicale mooy koy vacciner ko parce que xar bi su ëmbee boo ko vacciné wul lu mel ni euh, vaccin ay contre les mi euh, ma def benn publicité ay coquelin vaccin yooyu boo ko defee su amee doom jarul tétanos donc am na yoo xam ne sa vétérinaire moo la koy expliquer nga mën ko manager parce que euh, santé agneau bi mu ngi dépendre si ni nga yoree yaay ji moo tax waxuma carne sax carne comme suñu yaay yi xar bu jigéen war na am carne boo xam ne dañ ciy bind les vaccinations yoo xam ne obligatoire mu ngi koy def ak vaccination c'est des vaccinations facultatives pour au moins mu mën a jëriñ euh, mbote bi donc euh, à la naissance euh, mboote bi mën na def 5 kilos léegi 7 kilos ça dépend ci euh, yaayam parce que xar bu nekk tëng bu amee doom bu ñu fàttee mu ngi màgg y a des besoins de croissance ak des besoins de gestation donc yow boo ko booleeg yeneen xar rek yaa ngi koy lool parce que màggam yàqugul loolu mooy freiné tëng yu bëri moom mu ngi war a màgg ba pare mi ngi ëmb donc il faut mu compenser tous ces deux besoins muy màggaale ak ëmb bi di ko sonal muy euh, ak ak fœtus bi mu koy dundaale donc il faut mu am ni gestion des femelles pour seen première euh, mi euh, kii gestation c'est très important ñu ngi màgg ñu ngi ëmb bokkul ak femelle boo xam ne presque màggam jeex na donc soins yi apporté à la naissance bu xar bi amee doom les éleveurs ak expérience ñoom bu ñu xoolee xar bi matul nga xam ne kii vraiment ak nu mu nerveuse ak euh, genn bi nu mel nga xam ne kii vraiment soreetul nga bàyyi ko bët comme ça bu amee doom nga mën ko euh, jàppale parce que doom bi su génnee day nekk en hypothermie day sedd seddaay boobu nag yaa ko mën a def foo xam ne dina mën a réchauffé wu parce que seetlu nañu mortalité yu bëri ci agneau yi mi am dans les premières heures due à mooy seddaay bi ñuy génnee liw laaj ne donc ñu nekk foo xam ne dina leen mën a aar ci seddaay bi donc de 0 à 6 mois je le dis tout temps xal xar champion bi ñu koy defar de 0 à 6 mois parce que dina fa teg en moyenne chaque jour deux 200 grammes 200 grammes yooyu mu teg nag boo xoolee investissement bi ngeen am en aliment bëriwul donc boo bàyyee ba 6 mois yi passé nga ne man damay defar sama xar parce que euh, dama ko dama ko euh, ni ma koy euh, dépense affaire yi xamal ni tu as un champion champion c'est bis yu njëkk yi mooy toppatoo bu njëkk bi bu doo nga jël jumbax bi defar ko soins yu njëkk yooyu nag mooy tax xar bi bu ñu toppatoo xar premiers heures yi ak xar bu ñu toppatoo premiers heures yi boo leen gisee une semaine après tu vois la différence donc si premier mois yi mooy champion mooy champion donc éleveurs yi nañu yeewu ci côté boobu xam ne jar na moo boo xoolee de plus en plus sax éleveur bi gën a xar dañuy préféré gën a xar bu amee 3 mois 4 mois commencé gis effet. Euh, xale bu nekk xar bu xale ak xale bu nekk mag parce que potentiel boobu vraiment dañ ko mën a exploiter à fond à moins mu nekk champion bi champion confirmé nga xam ne kii il a fait mais xar boo xam ne euh, wanee bu ses preuves bu ratee phase bi rek dina naqaree dabe donc moo tax ñu am euh, Casa Agno bi xar daf fi am ndox am fi am fi kii am fi aliment am fi euh, kii ngooñ wax naa ko euh, aliment bi dina am rôle deux rôle dina tax bu dee terrain wala super laadum dina tax mboote bi gaaw a màgg bu gaawee màgg dina gaaw a fer parce que fer dépendre fer ak tëbu xar yu si bëri ngi dépendre ci poids bi pas ci âge bi xar mun na am sax âge bi c'est à titre indicateur mais xar bi mun na am sax un an bu amul yenn poids yi bu tëbu jàpp mais xar bu précoce am poids bu mat dina mën a daw tëbu donc sevrage ngi dépend ci poids xar bi xar bu su amul 30 kilos minimum boo ko feralee di ko sonal parce que day nekk xiibon du mun nàmp ci yaay bi du mun lekk ripaas donc te ripaas bi nag mu ko war a tàmm dès les premiers jours dès premier premières bu ko lekkee dina permettre une bonne croissance ak un développement des papilles luminales qui vont jouer un important dans sa croissance future ngooñ bi nag dina permettre rumen bi gën tijjeeku parce que rumen bi ngooñ wax naa ko sànq ngooñ bi moo koy maas muy am un développement en volume volume boobu mooy permettre xar bi bu nekkee mag dina mën lekk kilo aliment dina mën a lekk un kilo aliment mais xar bi su amul un volume rumen euh, comme euh, nit ku am biir bu ndaw rek boo ko tegalee un kilo aliment du ko jeexal nga ne xar bi amul appétit xaar ma déparasité ko xaar ma jox garab bu nekk alors que c'est le départ qui est lekkul mbooñ au départ donc bii bu tijjeekuwul loolu pour nga remettre en marche encore c'est presque impossible donc mooy euh, casa agneau bi de l'eau à euh, loolu tam dina permettre yaay ji deuxième point mooy yaay ji dana permettre yaay ji nàmpal lu bëri xar bi suy foog di lekkantu yaayam du nàmpal lu bëri te nàmpal un litre de lait c'est cinq litres de san nàmpal mooy besoin boo xam ne moo ëpp ci dundu xar bu jigéen donc lu ko noppal ki nàmpal bi rek njëriñ la pour xar bu jigéen bi ak tout éleveur bi donc euh, cage à agneau bi euh, résultat boobu bénéfique la pour l'éleveur et pour la femelle donc euh, ça c' est rumen bi boo xoolee premier jour yi xar bi moom laa wax sànq day nekk monogastrique la monogastrique comme mooy comme ñun rek mais plus muy lekk euh, euh, alimentation à base de fibre muy nekk ruminant donc tenor laadum mooy aliment mook super c' est des équivalents aliments yoo xam ne dañ ko defar pour éleveurs yi mu nekk aliment équilibré équilibré ci composition bi équilibre protéine énergie am na source de protéine yoo xam ne bokkul am na ràkkalu soja mooy ràkkal bi gën ci ràkkal yi ràkkalu gerte am na ko am na mburu am na maïs am na am na blé non am na non blé bi mën na suppléer mais bi donc am na lépp loo xam ne vraiment am na tam laalo éleveurs yi dañu dañoon def laalo ñu def nañ ci laalo def ko thèse boo xam ne école météo moo ko validé laala bi bu ëppee trop mën na daw biir xar su manqué amul njëriñ donc lépp loo gis rek il faut une étude boo xam ne ça permet la mise en place sur le marché parce que bu dee euh, médicaments yi docteur xam na ko avant koy def sur le marché da ngay am AEM autorisation de mise sur le euh, mise en sur le marché donc même alimentation yi dafa laaj étude boo xam ne vraiment da koy valider parce que bu ñu fàtte ni xar yi lekk aliment bi en retour dañ koy lekk donc ñun obligation lañu def aliment boo xam ne amul benn tolof tolof ci xar bi en terme de valeur nutritive ak en terme de protection